الله alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalina sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam mbokk jullit yi tafsir abdourahman Gaye asalaamualeykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulilahi zi lmanni walfadli walihsan wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan wa hidayatan lilaalamin سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن والاه asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam Cherif ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay di la ziar fa tabaarakallaahu di ziar ndokkeel mbooleem téléspectateur yi nga xam ne ñu ngi seetaan seen émission bii di seen suukaru koor. fii ci seen télévision bii di 2STV. di ndokkeel jullit yëpp fa tabaarakallaahu waaye di la ndokkeel di la sant bu baax. tey sant bu baax Oustaz Abdoul Qadir Ngom. waaw ah, waay Seydil Maam Xaaji Rawxaan Ngom. xam nga ni moom doomu Baye Alxaaji Cheikh Ngom la Baye Alxaaji Cheikh Ngom maam Alxaaji Rawaan ko jur. démb seen taxawaay ca Mermoz fa tabaarakallaahu te rafet na lool booba nag ñun ñu nga woon ca Bambilor macha allah nekk foofu di taxaw lu mel noonu ci ndigalu kilifa yi ci ndigalu kilifa yi ndaxte nag mbir yi tamit noonu rek lay demee waaye sa taxawaay taxawaayu Abdallah Fall bu Xaadim Guèye macha allah ak gaa yëpp macha allah nee nañu ma mbir ma rafet na lool waaye tamit jéggalu waa Afetras yëpp jaare ci suñu yaay Adja Anta Thiam fa tabaarakallaahu nga xam ni moom day suñu xarit di suñu lépp ñaanal ko yàlla moom ak association te dañuy wax ne lu yàgg dëgg la kon nag yal na yàlla nangu ko yal na yàlla sàmm te aar Chérif bismillah waaw di ko delluwaat rek di ko jaalewaat Adja Biti Loxo Guèye mhm. fàttewuñ ko ak mhm. mbooleem koo xamante ne membre nga woon bokkoon ci AFETRAS ak mbokkoo woon ci ñoom moo xam ci gaño la wala ci meen muy ci càmmoñ wala ci ndeyjoor mhm. ñu ngi yeesalaat njaal di leen ñaanal na xam ne nag AFETRAS nag yàllaa ñu boole nag alhamdulilahi rabbil alamin waaye Abdoul Qadir ngoom moom alxaaji bu Paal fa tabaarakallaahu nee naa ko jëf nga fa jëf joo xamante ni eh, keneen mënul jëf lu mel noonu mm-hmm. yàlla na yàlla fay la Abdul Qadir taxawula taxawu la i jaay rasulillahi waaye xaali Ousmane mm-hmm. ah tafsir ñu ngi ci question réponse yi mm-hmm. dafa am ku ñu ma laaj benn laaj ne ma dimbali ma lillahi wa rasulihi nga laajal ma ko tafsir Abdourahman ma ne ko bismillah loolu mooy lan xam naa ne ci zihaar lay wax nee na daal waaja dafa xool soxnaam ne ko fase naa la su ma la nammatee xam yàlla naa xam ndey juba jur tafsir wax jooju day faral di am xaw ma lan moo ko lal xaw ma ndax reewandee ko lal ñàkk yar ñàkk teggin ñàkk xam ni ngay waxe xaw ma lan la waaye nee na daal loolu daal loolu il faut nga traité côté boobu mais nee na daal lu ku dem ba wax loolu ndax mën nga jëlaat sa jabar ndax lislaam may na la nga jëlaat sa jabar nee na nag ci diggante boobu la toll question la bu bu doy waar nee na nag loolu dafa bëggoon gis gis-gisu l'islam moo tax tafsir loolu laa bëggoon naa nga détaillé ko bu baax macha allahu ay dara fa tabarakallahu xam naa mm, démb fa tabarakallahu ñu ngi woon ci wàllu wax loodul def mm-hmm. li mën nañ ko sax dugal foofu xam nga ñu ngi woon ci yaa ayyuha alladina amanu li ma taquluuna maa laa tafaluun fa lañ nekkoon de kabura maqtan inda allahi an taqulu maa laa tafaluun ca lañ nekkoon mm-hmm. xam nga ñu waroon a question yi mm-hmm. waaye xoolal question bi njëkk a ñëw bi ñu jógee ci li ma la maa laa tafaluun mm-hmm. xam nga nga jàkkaarloo jigéen ak yaay ni mu amee solo ci lislaam nga xam ni lislaam dafa fonk ñaari wayjur mhm. suñu boroom subhaanahu wa taala saa bu waxee ni wéetal leen ma te bu leen ma bokkaale ak dara la mu cay teg mooy wa bil walidayni ihsaanan wallahi wa abudullaha wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsaanan suñu boroom subhaanahu wa taala gis nga ci beneen aaya ca suratul isra wa qada rabbuka an laa taabudu illa iyaahu wa bil walidayni ihsaanan saa bu waxee wa wassayna al insaana bi walidayi xamalatu ummu wahnan ala wahnin ca luqmaan gis nga yàlla fu mu waxee rek subhaanahu wa taala la muy indi mooy ñaari wayjur wéetal leen ma bu leen ma bokkaaleek dara ñaari wayjur nee naa mbir mi ci yoon nii la waroon a demee bu fekkoon dañ koy tracé suñu boroom subhaanahu wa taala muy yàlla sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax atiu llaha wa atiu rasul ku ñetteel ki mooy wayjur koo ca teg muy sëriñ wala ku mu doon nga teg ko ca mhm. waaye ñun nag Sénégal ñun dañ ko tourné ka waroon a jëkk mooy mujj ka waroon a mujj mooy jëkk fa tabaarakallaahu mm-hmm. Mm-hmm. waaye xam nga wayjur dafa foor mm-hmm. ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dem ba ni ridallahi fii ridal walidayni wa suxtullahi fii suxtil walidayni sallallahu alayhi wa sallam nee na ku bëgg a xool ndax yàlla gërëm na la am gërëmu la xoolal sa digganteek sa ñaari wayjur mhm. ku sa ñaari jur gërëm xamal ni yàlla gërëm na la mhm. waaye ku bëgg a xool sa digganteek sa boroom ndax mere na la am déet nee na xoolal sa digganteek sa ñaari wayjur ku sa ñaari jur mere xamal ni sa boroom subhaanahu wa taala mere na la mhm. waa léegi ñaari jur yooyu nag bu fekkoon dafay am étape ku ci gën a fort nga jël yaay ndax lan nga ni nga jël yaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam la benn waay ni ko sama yaay ak sama papa kan laa war a gën a topp mel ni daf ko ni woon sama yaay damaa woo sam papa woo ma ku may wuyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ati ummaka wuyul sa yaay mu ne ko ñu woowaat ma mu ne ko nga wuyu sa yaay mu ne ko ñu woowaat ma mu ne ko nga wuyu sa yaay mu ne ko ñu woowaat ma mu ne ko nga doog a wuyu sa papa man nag toujours dama naan gis nga yaay ni mu yilife doom noonu la ko bàyyi yilife moom mii borom jaay kon yaay bu wootee bàyyi woote mhm. xale bi na wuyu si yaay waaye yaay moo ko naan sa papa dalaa woo mu ni waaw mu ni ko demal wuyu ko ba ñëw ndax ganaarak ak nenam borom ganaare leen moom te xam nga nag borom kër mooy kilifa ak soxna si kon fa tabaarakallaahu nga xool yaay ni mu foore yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni aljannatu taxta aqdaamil ummahaat mhm. yaay kenn ku ne sa sa caabi aljana mu ngi ci sa suufu ndëggu ndey sa àjjana mu ngi ci sa suufu ndëggu ndey léegi par exemple Chérif tey bu ma doon wane ah mel ni lii mooy caabi ji caabi jaa ngi nii caabi aljana mel ni léegi sa yaay def ci teg tànkam waa léegi Chérif bu ma tegee sama tànk nii ci caabi ji yow nga soxla ko xam nga nooy def pour jot ci waaw waaw nan ngay def ñëw di naxante di raay tànk bi ah mu jóg noo nan ngay def pour jot caabi ji da ngay yëkkati tànk bi da ngay da ñëw rek force yëkkati tànk bi déedéet da ngay raay di naxante ba tànk bi. Ah, waaw kañ da ngay naxtaan. Mhm. moom laay wax xale naan da ngay raay mbelle. mooy da ngay neex xam nga xale ñu ko daan naxee raay mbelle raay mbelle. bu ko defee boo ko naxee mu wàcce ndànk tànkam. Uh-huh. nga jël sa caabi nga tijji sa aljana. xam nga diggante àjjana ak safara pont ba fa nekk mhm. safara la gàllu boo nekkee di jéem a forcé nag sa yaay mhm. ci waxin mhm. caabi ja dina yàqu nga daanu safara mooy lan la ñu la bëgg a misaal mooy ku bëgg aljana ëllëg fii ngay neexale sa yaay boo amee sa ngërëmal yaay dem aljana ci lu wér waaye yaay jooju nag yàlla may la soxna ngay mer mer yóbbu la ci nga ni ko bu ma la nammatee xam yàlla naa xam sama yaay <laughs> wala yemale naa laa ak sama yaay yemu ak sa yaay yaay kenn yemul ak moom te tamit nag kenn du yàlla suñu borom subhanahu wa taala gis nga baat boobu dafa dem ba ni walladina yadaharuuna min nisaihim summa yacuuduuna lima qaalu fa tahriru raqabati wala ca ca ca kanam qad samia allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allahi wallahu yasmau tahawurakuma inna allaha samiun basir alladina yazaharuna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zuran wa inna allaha la afuwun gafur sadaqa allahu alazim mu nga wàccoon ca xawlatu waaye nañu pour mu gàtt jarul indi sababu nuzul bi yàlla suñu borom subhaanahu wa taala nee na yéen góor ñi ñu ci xool seen jabar ni leen bu ma leen nammatee xam yàlla naa xam nday ji ma sukk jur wala yemale naa la ak sama yaay yàlla nee na duñu seen yaay de yemuñu ak seen yaay de te li nga waxit waxi reewande la waxi caaxaan la wax ju ñu bon la wax ju ñu sib la yàlla nee na subhaanahu wa mënuñoo yem yéen nday yi leen jur mënuñu yem ak jigéen jooju suñu borom subhaanahu wa taala nee na def ngeen nag lu rëy wax ngeen baat bu rëy baat boo xam ne baatu reewande la baat boo xamante ni baat bu bon la waaye nag yàlla jéggale kat la waaye nag li muy mën a jéggale jéggale jéggale moom yàlla bu lay jéggal da koy teg ci condition ndax metti gu baat boobu metti dëgg la mel ni dañ ko ni yaa rabbi boo koy jéggal noo koy jéggale mu ni nag walladina yadaharuuna min nisaihim thumma yacuuduuna lima qaalu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa mhm. suñu borom subhanahu wa taala nee na fa mu min qabli an yatamassa wa fa man lam yajid fa siyaamu shahrayni mutatabi'ayni min qabli an yatamassa fa man lam yastati' fa it'aamu sittina miskinan dhalika li tu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullahi wa lil kafirina adhabun alim sadaqallahu alazim suñu borom nee na nag yow mi wax loolu nga dem ba jamono ñëw nga bëgg a dellu gannaaw wax nga waxi reewande waaye mën ngaa dellu gannaaw nga ne ko yaa rabbi nu may def pour jëlaat soxna si mu ne da ngay woor da ngay goreel jaam mm. d'abord jaam amatul. léegi bu jaam amul nooy def mooy dangay woor ñaari weer. ñaari weer yi ngay woor sérif day toftaloo. shahrayni mutataabi'ayni min qabli an yatamassa amoo droit laal soxna si teg ko loxo te wooroo ñaari weer yu toftaloo. ah tafsir boo wooree ba mu def weer ak genn wàll nag nga feebar dog Chérif pour mu gën a gàtt rek ndax xam naa ni da nga bëgg mu leer ci <laughs> ci ci téléspectateurs yi waaye boo wooroon mhm. weer mhm. ak ñaar fukki fan ak juróom ñaar xam nga ñaari fan la dese wala ñaar fukki fan ak juróom ñett mu dese la ñaari fan wala benn fan mhm. nga feebar boo dogee da ngay reprendre à zéro eh, xam nga loolu metti na. sanction bi parce que wax ji moo metti wax ji moo ñaaw moo tax nit ki saa bu meree dafa war di contrôler boppam. Mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na saa boo meree bu la fekkee nga taxaw toogal saa boo meree demal nga jàpp. boo jàppee ba pare nga julli ñaari rakk looy wax nga door koo wax shérif mm-hmm. kon daal wax jooju wax ju ñaaw la mm-hmm. waxi reewande la wax ju bon la ku yàlla na tooy it nga wax ko ba pare bëgg a delluwaat gannaaw pour jëlaat soxna si mën ngaa delluwaat gannaaw waaye pour nga delluwaat gannaaw mooy dangay goreel jaam bu dee jamonoy tey jaam amul dangay woor ñaari weer ñaari weer yi nag boo ko wooree bu ci benn fan daggee da ngay reprendre à zéro moo xam feebar la moo xam leneen la da ngay reprendre fokk nga woor ñaari weer yoo xam ne day toftaloo day kole lépp day kole du am benn dagg dagg dagg mm-hmm. bu ko defee nga doog a mën a jëlaat soxna si mm-hmm. bu fekkee nag da feebar par exemple feebar boo xam ne yow mënoo woor ci àdduna mm-hmm. fa man lam yastati fa itaamu sittina miskinan su boobaa ngay leel juróom benn fukki miskiin loolu ngay def doog a mën a jotaat ci soxna si sérif loolu mooy atte zihaar ah. li ñu amoon ci waxtu jeex na mm-hmm. bismillah ay dara kon xaali Ousmane dafa am lu ñu ci war a jàngat mm-hmm. mooy addina pour mu dem il faut sanction yi di am mm-hmm. xam nga ku ñu sanctionné deux mois successifs nga war ko woor ngir mën a jotaat sa soxna xam nga ni kon soxna si doo ko fowee ba di génnee kàddu yi nga xamante ni naka su noonu la waaye xaali Ousmane delluwaat santaat suñu borom subhanahu wa taala sant la nag ci yaatal bi nga yaatal ak leeral bi nga leeral ñuy ñaan suñu borom képp ku doon wax loolu na nga ci delluwaat gannaaw nga tuub ko bañ koo defati waaye tamit da ngay gis ni lislaam mu ngi xeex tamit lutte contre la pauvreté ba ci leel juróom benn fukki miskin yooyu nga gis ni loolu yëpp mu ngi xeex xiif goreel jaam abolition de l'esclavage loolu yëpp nga gis ne l'islam bu mu ko dalee di xeex du tey kon l'islam rek si bisee xaali Ousmane kon suba jàmm inchaa allah bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bnayhimu sibtayni a'laamil huda wa bi sahbihi wa taabiina lahum fa hum saadaatuna ahlul makaarimi wan nada jërëjëf xaali Ousmane ay dara xam naa ne xat na waaw waaye waa taseet yëpp ñu ngi lay nuyu waa sama daara fa tabarakallahu sant bu baax monsieur le maire wallahi Mamadou Thiaw ak soxna madame Thiaw Fatimata macha allah kanji kanji waaw macha allah ñu baax ñuy jàpp ci daara ji nga ñaanal leen yàlla ah ñaanal leen yàlla ñoom ñooy autorité daara ji ndax meeru taset bu dee mm-hmm. daara ji taset la nekk mm-hmm. waaw ka nekk rek la wax ku xeebul sa nguur di buur kon maire yàlla ko yàlla kattanal amiin amiin boobu liggéeyam bi muy mm-hmm. mu matale ko ko yàlla def ci daraja yonent bi jërëjëf Xaali Ousmane kon ba suba allah jërëjëf tafsir jërëjëf barakallah رسول